tu ak sa sant di gërëm sant Amagod Diouf ak Dame Mbodj teew maa ngi leen di nuyu yéen journaliste di leen sargal ci at bu bees bi di ñaan yàlla indi wér-gu-yaram jàmm ak gudd ci ku nekk ci yéen ak ci réew mi may ñaan tamit yàlla may suñu juróomi soldat commando marin yi réer yàlla delloosi leen ci seen biir njaboot ci wér ak taal maa ngi gërëm di sant responsable yi fi teew te di ndax suñu réew dañu nekk ci jamono bu am solo mooy ñu am élection yu jub yu leer yu jaar yoon yu ñépp mun a bokk mbaa am teg bu nguur gi teg ci boppu nit ñi ngir tànn ñi di dem ci élection yi maa ngi gërëm di leen sant yéen journalistes yi yii di teew toujours ci ñu woote gërëm leen sant leen ndax yéen dox suñu diggante ak askan wi ndax kat tey dañu leen di jox ay xibaar yu wóor yu leer xibaar yooyu dañ ko jëlee ci ñaari document yépp ñu ngi jóge ci conseil constitutionnel danañu leen ko jëbbal te moom la ñu leen won nii ci rétroprojecteur bi document bu jëkk bi moom la Souleymane wone nii boobu moo di bés bi ñuy déposer dossier bi suñu mandataire Tabouré Agne di déposé nous avons signé ak greffier en chef le conseil constitutionnel le document bi moy document bi nga xam ni bi ñuy saytu suñu parrainage yi boobu ñaar ci conseil constitutionnel nous signé ki yoré parrainage ak ki nga xamni moy greffier en chef bu conseil constitutionnel ñaari document yooyu bu ñu leen gisee seen wuute moo tax ñu sàkku huissier maître Pape Fam mu saytu leen bind benn kayit bu wone seen wuute dëggal ko ak tamit ñu jël maa ngi koy gërëm ko sant maître Bassirou nous mu avocat nous sommes avocat Mon maître Bassirou Lo ko tamit mu bindal xibaar yi ñu mandataire tabouré Agne dem déposer ci tribunal nous nekk une réclamation que nous avons ko def janvier 2000 24. Ce qui les documents, Nous avons des documents, du Conseil constitutionnel constitutionnels m'ont coupé. Pour dire que vous votez, vous avez déposé, vous avez vous avez vous tous les parrainages. Vous dites que vous avez sur 51 267 Nous avons fait un journée ak ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar beneen bi mooy bu ñuy saytu suñu parrainage ñu ne cinquante et un mille deux cent cinquante quatre la muy juróom fukk ak benn junni ak ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñeenti parrain su ngeen gisee ñaari documents yi fukk ak ñetti parrain ay nit ñooy lim kooku. wuute mun nañu wax njuumte day am wante lii numérique la fichier numérique la mun naa wax lu tolloo fukki at lu tolloo sax téeméeri at soo sooy xoolaat lim bi warul soppeeku warul soppeeku si numérique loolu moo soppeeku wante soppeekuwul foofu rek suñu demee tamit ci ñoom ni ñu séddalee lim bi ci région yi gis nañu tamit dafa soppeeku loolu jox naa leen ñaari tableau yu wane wuute So soo tableau bu njëkk bi nga jël région de Dakar wuute bi ñaar la région de Djourbel, foofu ñoom ci bu ñuy déposé binduñu limou Djourbel, de dañu ko tëb nga jël région de Fatick wuute bi ñaar région Kaffrine wuute bi benn la région Kaolack wuute bi benn la soo demee ci ñaareelu tableau bi ñaareelu tableau bi Souleymane ñaareelu table bi soo demee Ndar wuute bi juróom la soo demee Sédhiou wuute bi benn la soo limee wuute bi lim yi wuute dangay jàpp fukk ak ñaar mais ci njëlbéen wax naa leen fukk ak ñett lañu soo loolu léegi yaa ngi xam lu tax fukk ak ñett la war a doon mooy nga xool li mu jurbeel bi ñu tëb soo xoolee li mu jurbeel bi ñu tëb nga dindi lim yi ñu wax yépp da jox li pour li mu jurbeel quatre mille sept cent quarante six muy ñeenti junni juróom-ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn xam ngeen bon day indi wuute benn ak lim bi nga xam ne bu ñuy saytu moom la joxe

mun a dem ba téeméeri at du warul soppeeku bon loolu day tax ni suñu clé boobu ñu joxe woon boobu ñu joxe mbaa dañu ko laal mbaa dañu ko laal mbaa dañu ko jël beneen clé remplacer moo tax ma ni de

suñu cellule informatique ñi ci nekk yépp ay informaticiens lañu xam nañu li ñuy def beneen bi mujj boobu moom mun naa wax rax ci dolli la ndax suñu cellule informatique bu ñu paree loolu mu continuer di saytu ba bërki demb ci guddi rek benn mbir bu doy waar ex bu ñuy xool ñi nga xam ne nee nañu kenn gisu leen ci fichier électoral bi xàmmee wu ñu leen ci fichier électoral bi ñu gis ci sama tur man mi nekk candidat ñu seet parce que suñ gisee sa tur fekkee dañu juum ci bind tur bi fekkee diñu juum ci bind tur bi mun nga wax ni ordinateur bi mun na ko bañ a xàmme application bi mun na ko bañ a xàmme wante ñu seet mari taw amul njuumte ci ni ñu ko bindee ñaan amul njuumte numéro carte électeur bi amul numéro identification nationale bi amul date expiration carte d'identité bi amul bon données personnelles yi ñu laaj amul juumte nan nous baña xamé lool fichier électoral bi ñun gëm fichier électoral li ko une coordonnatrice nationale de parrainage Yaya Sabel Ngom si mu demee ci DG DGE ngir fiche de parrainage bi jox nañu ko nous, mandataire docteur Tabouré Agne bu mu demee di fay caution bi ci caisse de dépôt et de consignation nangul nañu ko mu fay ba jox ñu nous ci war yépp te yooyu nee nañu duñ ko jox koo ni candidat binduwul ci fichier électoral bi beneen bi man am lu ëpp ñaar fukki at ba amul élection bu voté pour présidentielle muy député muy élection locale te voté wuma feulé ci Dakar Bango ci bureau numéro un ci bon lolu dafa doy war trop yéen journaliste yi ak askan wi li am opération la di teggi kenn par kenn ci jamono bu nekk ci opération électorale bi parrainage yi candidat yi nga xam ni kenn bëggu leen nguur gi bëggu leen candidat yi nga xam ni ñoom ñooy won askan bi njaaxum yi nguur gi di def candidat yi nga xam ni ñoo àndul ak noot bi ñu noot suñu askan te tamit booleeg noot suñu réew

dindiwul kenn ku war bokk ci élection yi li tubaab di wax élection inclusive loolu lañu musa wax te it dañ cay dellu beneen bi moo di ñuy ñaan conseil constitutionnel candidat yi nga xam ni def nañu recours ñu xool recours yooyu ku nekk ñu delloo la sa yelleef ngir ñu bokk ci élection yi te ba léegi ñu am yaakaar ni conseil constitutionnel dëgg yu wër benn yi ñu leen won te ñu yónnee ko moom it dana ko xool ñu am yaakaar dana doxal dëgg delloo suñu suñu yelleef ñu bokk ci élection yi maa ngi leen di gërëm di leen sant jërë ngeen jëf